autant sur les sanctions, autant sur euh, le contrôle routier Rapide, je ne sais pas, mais ce non je suis intéressé, c'est efficacité Tant que c'est efficace, tout le monde le sent. Je ne sais pas si dina yomb wala dina gaaw parce que fii moom dara yombul dara gaawul da ngay commencer rek ndax boo commencé bëgg def tamit buñ la jàppalewul amaana waxuma ne di nga di nga def waaye du gaaw il faut boo commencé aussi nga tege ci raay bi ñu mën la cee jàppale te tey ministre yi bu ñu jëlee décision aussi di def te ñi nga xamante ne ñooy passager yi jàppuñu ci teggi seen tànk fu ñu gis oto bu fees ñu ne dañuy dugg wala la yeneen ak yeneen ñi nga xam ne ñooy chauffeurs yi dinañu bàyyi tegale ay oto ñi nga xamante ne ñooy chauffeurs yi dinañu bàyyi di dem di maguy ay affaire de euh, visite technique wala àbb ci oto bii parce que def na teg ci sama oto bu ma paree ma daal di dem yooyu yëpp suñu ko wàññee euh, boole ci li ministre yi di jël seeni décision dina yomb léegi nag dina gaaw wala du gaaw jeune ne pas mais li ñëpp di xaar mooy te efficacité boobu daf du desul ci ay mesures kese mesure bu nekk dafay ànd ak applicabilité mhm. buñ ko appliquer mesure yooyu ñu topp par ba mu sës def leur maximum ba mu ab ba ñu appliquer ko dina yomb bu dem lay jox exemple est-ce que dox nga ba dégg euh, dakaar dem dikk dafa accidenté ci yoon bi wala boo ko déggee bala nga koo déggaat day yàgg dakaar dem dikk lu mu défaut technique ñu ne ça a pris feu c'est loolu c'est mécanique oto Sénégal Dakar dem dikk yi ni mu amee nii biir Dakar noonu la Sénégal dem dikk amee même les bus de Dakar dem dikk ñoo ko niroo ñooy dem ci sous région bi mais doo dox ba dégg ñu ne la Sénégal dem dikk bu doon dem Gambie wala mu jëm Mali wala mu jëm fee moo accidenté ci yoon bi lan moo tax ñoom ñu mën a nekk en règle li ko waral c'est très simple yàlla mi ngi fa mais seen oto yi nañ ko war a xoolee ña ngi koy xool à temps visite technique dangaa gis chauffeuru dakaar dem dikk bu la romb ak incorrect mos nga koo gis dañuy solo normalement tege ci yoon bi normalement yor seen papier ba mu mët Sénégal dem dikk yi boo ciy dugg ah di dem ci région yi ticket yi ñu jaay nombre ba oto bi su déparé fees na wala feesul du yebaat ba ba mu yegg fu mu jëm bu ñëwaatee aussi jëndaat nga la même chose mais départ ci tali bi arrêt bu nekk ñu taxaw fa jël comme ñeneen ñi amul nombre ba mu yebee moom lay demee ba yegg Nyom lan mo mën nyom, tax ñoom ñuy def attention di def li war lépp lépp pour éviter yenn yi te mënuñ ko def Dakar dem dikk yi nekk ci biir Dakar ñoom ñooy daw ak seeni nawle tata ak njaga njaay mais chaque jour nga dégg ñu ne la njaga njaay bee daa këppay pont ba la wala car rapide bi mo fekk ñii nii ci kaw tali bi mu ramassé ñëpp raja xaleen daal di dem wala tata bi ak beneen tata bi dañu doon course kat parce que benn frein yi nangam nangam muy rajaxe di dem chaque jour te ñoomu neen ñoo nekkandoo ci tali bi léegi comment se fait-il que Dakar dem dikk Sénégal dem dikk ah di mën a dem normalement te yooyu noonu yëpp bu waxuma ne du am sax waaye boo ko déggee bala nga koo déggati kenn xamul kañ la te ñiy dëkk ci donc y' a y' a mais naka la ñuy def ba modèle bii baax ñu mun ko mu mun a law ba ci ba ci yëpp naka la ñuy def. Euh, euh, euh, loolu loolu engagement personnel si la bokk parce que tey chauffeur de car dem dikk na mu def ba correct chauffeur car rapide wala. njëkk a jaay peut-être mën na bi wala la main de l'État mais entreprise mën na am rigueur mais kay ñëw liggéey si du ko am. entreprise bi mooy la base tey parce que tey bu nekkee ne yow ki nga recruter mu lay liggéeyal. xam na ne lii ko fi defee dañ may dàq tey laay ñàkk mais dafa entreprise man xaw ma dama lay laaj. entreprise. Je <laughs> ah, rek Njaga entreprise xaw ma parce que nii laa leen fekk dama je c'est une question bu je te pose une question. je demande ma je veux savoir non ah. non non franchement dañuy en fait. Euh, je veux savoir ndax Njaga dafa association peut-être euh, y a un propriétaire qui a. Euh, voilà benn entreprise moo tax ma ne la volonté personnelle la parce que bu nekkee nit ki moo créer entreprise am yow la nga créer mu war la njariñ ëllëg yow tamit da nga am àq boo xamante ne moom nga ko war a jox mhm. ba bu subaa lépp lum la njariñ tamit mu mën a dem mais bu fekkee amoo àq contrôlé woo dara car rapide amul contrôle da ngay dajeeg mbedd mi koo rek moo koy dawal njaga njaay la même chose chauffeur bi day dem ba sonn mu bàyyi ko apprenti bi mu yeb nit ñi di leen yóbbu volonté personnelle il faut que le mouvement ñoom xam nga lan moo war a nekk seen euh, entreprise tey le syndicat des transporteurs Gora Khouma invité nga ko fii bu mais mhm. mais mënuñu yor syndicat yoo xam ne chaque jour ñuy laaj revendication te li leen war defuñu ko dans les syndicats il faut que tamit des fois ñuy bàyyi di di jël autorités yi di leen sànni lépp sénégalais yi ñu jël seen responsabilité parce que mënuma gis nga yor mouvement syndical chaque jour nga laaj dara chaque jour nga revendiquer dara te yow li la war matale woo ko bu c'est ça

peut-être euh, légal yi euh, ou légaux yi euh, ñu ngi ñu ngi xool président de la république bind na conseil conseil constitutionnel diko laaj afem ci wàll bi mais politiquement dissolution ou assemblée nationale ban soubassement politique nga jàpp ne moo lalu ci loolu. dara dara du si am de buñ ko dissoudre dañuy japp datu élection buñ jappé datu élection ñu jël nombre de jours campagne ñu demaat rek jàkkaarloog sénégalais wax leen. wax ji ñaar mooy am li nga wax gëm naa ko dinaa la votel gëmuma la parce que li ma gis dalul sama xel ma romb la votel keneen léegi ñoom bu ñu jëlee initiative di euh, di dissoudre ko amaana am nañ yaakaar boo xamante ne xam nañ ne bu ñu delluwaatee ca ñoom tàggat leen seen kii tamit ñu jox leen ko et bu ñu leen ko joxee aussi amul problème de man j'ai pas de problème pour ça de sénégalais yi la li nga bëgg lool ngay def. 54 pour cent lañ leen votel ñu nekk président bu ñu bëggee ñu jox leen aussi assemblée ñu am majorité. ñu doxal boobu responsabilité sénégalais la ñoom ñooy choisir dañuy demaat rek ñu jàkkaarloo ci mbedd ma rek ku nekk ñëw jàkkaarlook yow wax la li dal sa xel loolu ngay voté et puis man ak lu ci mën di am l' mooy Sénégal na tegu ci raay waaye dund gii ñu dund moom metti na fan yi donc lu koy dindi moom la ñuy laaj waaye leneen du leneen loo xamante ne daf koy yopp ko ay métit alors euh, tey euh, bu ñu tax sukkandikoo ci Euh, le le PM Sonko mi nga xamante ne xamale na ne euh, non seulement buñ corriger euh, règlement intérieur bi mais bu passer une date qu'il avait avancée 15 juillet moom du fa dem tey gis nañ ne date bi passé nañ ko largement tey lan lañ mëna xaar ci PM mi nga xamanteni ni kenn mënu ko jox injonction sinon que le président da koy ñaan rek ci njëkk ko mënul day outil du jury populaire am lan lañ mëna xaar ci ci ci venant du PM par rapport bi ñuy wax ci euh, keroog bi euh, waa waa assemblée nekkee séance plénière dama kaa wax fii nga naa ma non bi ñu ne ni ma ne leen réglement intérieur bi defar nañ ko waaye soxlawuloon urgence. wala mm-hmm. man maa comprendreul dégguma tubaab wala dégguma wolof. Mm-hmm. parce que PM dafa ne damay leen di wax ni que fii ba le 15 buñ ko defarul mu passé le 15 dootuma ñëw sa veut dire que même le 15 tubaab man li ma comprendre mooy même le 15 <laughs> soo ko defarul ba le 15.

moy que d'ici le 15 defar au-delà du 15 douma ma dem fofu noonu di jàkkaarloog dem défi ko jury populaire et puis le président quand il parlait aussi dafani ñana le premier ministre bu mu dem ci devant un jury populaire même sous ma niki bu fa qui dina am euh, qualité bi je sais pas requise mais man dégguma fu président waxee aussi ne wax naa ko après le quinze aussi buñ ko defaree mu dem déedéet dafa ne ñaan naa ko bu mu dem defi jury populaire xam nga ñaan nit pour bu mu dem def jury populaire ne veut pas dire aussi ñaan naa ko bu ñu defaree règlement bi mu ñëw même au la de quinze ba mu waxee loolu mu bu ci yokkoon nit ki léegi wax naa ko ñu defar ko buñ ko defaree ba noppi mu daal di ñëw loolu dinaa xam ni que ah wax na ko kon buñ ko defaree au delà le 15 it mën naa ñëw waaye ki war a dem moom moo ne bu weesoo dat bii du ma ñëw. ki ko doon ñaan ni man ñaan naa ko ne bu mu dem defee ji ko ci mbedd ma loolu la wax bu mu ko defee ji ca mbedd mi ma wax waa assemblée aussi ñu defar seen euh, réglement intérieur le plus rapidement loolu rek la wax man loolu laa dégg bokk Je ne sais pas am legui veux dire. su amé ba pas ba passé na. Je man. ñuy xaar ndax dina dem parce que man damay parce que il faut que ñu xam euh, ban orientation la politique du gouvernement di doxé ñu am ci benn issue euh, su ko défé ba député yi budget ñu di gouverner. mais su amul tamit man man xaaruma ko personnellement parce que man la comprendre ko loolu laa jàpp ba ba may gis leneen mooy que bu passé la quinze du ma fa ñëw te mbir mi passé na la quinze barki démb lan ko doon voté mhm. donc ñoo ngi ci août te juillet la waxoon donc man damay jàpp ne moom moom du ñëw la mu waxoon noonu loolu lay def bu ñëwee tamit loolu moo may bett mu ñëw moo ay bett mais ñàkk ñëw du ma bett te bu ñëwee aussi moom la Sénégalais yëpp di souhaité su ñëwul aussi dañuy tas assemblée ils ont le droit danoo dem élection ak seeni ñooñ ñu gagné. ñom tamit à 54 sénégalais ñoo leen wolu denk leen ñom bu leen comme de dañ la wolu denk la yow tamit ka nga wóolu ko nga mëna a bokkal liggéey ñoom dañuy dem wuti ñeñu wolu ñu bokk ak ñom légui nak bu féké sénégalais yi nangul nañ leen joxaat leen pour ñu dem àndaat ak nañu wolu tamit y a aucun souci nous sommes tous des sénégalais ku nekk nim ka santé nak le plus important encore une fois pour moi personnellement moy c'est le bien-être du Sénégal dund yi ñuy dundu ñu fexe ci juk te foog naa ne déclaration de politique général dina doon tax mbir yu bari bu mënul gaaw tam mu déclenché émigration bi ba tey mi ngi continuer di dem les les jeunes son la en train de souffrir bakki démb lañ fi wax waxu presse bi taw bi ñëw na yokk ci lool lii nii yëpp mu ngi am ci réew mi te amagul ba tey declaration de politique générale amagul ba tey budget boo xamante ne moom la ñuy def xanaa ñu continuer budget bi nga xamante ne moom la fi ñu fi nekkoon jëlee te loolu foog naa ne su fekkee ñoom danoo ñëw si bees bëgg demal seen mbir yu bees ñu àndale ko jub jubal jubante foog naa yu bari war nañ koo mën a teg ci loxo bu ñu yaakaaree ne tamit ñu jàpp ni ki ñoom àttan nañ élection législative période bi eh, yaa xëyti amul benn problème nañu dem après ñu demaat laaj voix sénégalais ce sont ki sénégalais qui décideront a pas yaa ngi wax jub jubal jubbante léegi bu ñu euh, euh, sukkandikoo ci euh, wax jooju nga xamante ne ay valeur lay convoqué comportement la waaye jikko la melokaan la waaye aussi taxawaay la gu dëgër goo xamante ni képp ku ñu dénk alalu réew mi dañ laa namm nga taxawee noonu mbaa nga xarxanam gi niru woote yooyu nga xamante ni ay position la waaye ay valeur itamit la waaye tey bu ñu seetloo ne lépp lu aju ci liñ leen di toppee maanaam déclaration de le générale bu yéex bu tardé bo xamante tay euh, concernant le PM bataille bossam ken gisuko nous euh, ñu ngi leen di ay jëndum 200 millions euh, ci ñenn ñi ñu ngi dem ci këru liggéeyukaay yi fekk fa ay sénégalais di leen fay génn di leen fa génne ngir placer seen nit buñu xolé ci walum joxé marché ak gagné marché buñu jëlé exemple la l'inter-syndicale du port autonome de Dakar ñu ngi joxar bi tuuma kële baramu tuuma ki nga ni directeur général wandi Diouf Bodian ndax jub jubban jubal jubbanti moom wax ju ju nekkatul wax ju yàqu <laughs> waaw xam nga affaire bi dafay xaw a compliqué pour nga mën ci kii léegi man euh, euh, dama dama posé wu la yooyu yi nga lim nii yëpp mhm. dafa ñëwoon sama xel mhm. bu ma ko xalaatee xalaataat ko bàyyi ci xel yëpp après ma ma première question était dans tête mhm. xëy na damaa <laughs> wéerul bu baax mooy que bar orientation ñoom la ñu jox jub jubal jubbanti je crois que loolu ñu bari bàyyiwuñu jàpp ne pour ñeneen ñi la. non non pas pour ñoom pour ñeneen ban orientation boo gisee ma wax ban orientation walla ban contexte lu tax ma wax lool. mooy jub jubal jubbante euh, ndax dañ koy euh, orienté ci boo liggéeyee moment bi nga xam ne moom lañ la jël nga commencé di liggéey ba ba ngay jeexal foofu dañuy jub jubal jubanti wala ñi jeexal ba pare daal di dem ñu saytu liñ fi nekkee woon jub jub yoolu jubanti wala question bu nekk pose naa ko mais mënuma ko fixer orientation bi lu tax mënuma ko fixer dañu doon wax ci mbiru littoral bi affaire kër yi président jógee ko fi dem ba mbuux kaat pour xooli ba mu ñëwee arrêté nañ ci ay travaux ñu tra arrêté si loolu laay ñëw ñu arrêté ay travaux ñu ñëw ci loolu ca suba sa ñu ne président am na 4 virgule 3 hectares ca Ndiaga ñu ne ah diw moo ko ko joxoon maire baa ko ñii ne maire bee ko attribué récemment yàggul gis nga euh, ku naar boobu xaw ma naar la xaw ma lu mu doon mu génn ne maa ko ko jaay ñaaw la dëkk de xam nga loolu aussi bu mm-hmm. boobaa ñi ñi di poser question uh-huh. ñu ñëwaat ci déclaration de patrimoine président avant élection mu génnee woon benn mm-hmm. ñu gis te ay prêt oto boo xam ne dan ma ko lebaloon nag terrain ya mooy hectare yooyu ca Ndiaga kër gu ca mer muus et tout mu jox wax wax wax ba mu ba ñëpp gis ñii di posé wu kan euh, interrogation mais après élection ñu ñëw mu gisaat mu def déclaration de politique générale ñu publier ko boobu coow bi ne kur xam nga loolu dafay metti bu boobaa yow li nga xamante ne moom ngay tere ñenn di ko ruumandaat ne moo am ci yow duma wax moo am amul xaw ma ci dara li ma liir rek loolu laa parce que am na ay hectares fenn njaga ñaata kër la loolu beneen côté bi keneen loolu la amee ñun bu ñu mënee dem ne kii lii nga jënd nii waruñ la ko attribuer mën nañu d'accord ne moom tamit war naa delloo bosam te loolu bu boobaa kenn waru ko ko wax comme moom en tant que le père de la nation moo war a jël initiative ne bii delloo naa ko parce que bu may woote lii dañ ma ci kenn duma ci jiitu d'accord naa nag passe politique rek bu dafa ànd ak man politique mu dem ma may ko ay terrain ca àll ba ba mu mhm. feesal loolu d'accorduma ci kuñ ko jox nañ ko nangu mhm. bu fekkee nit ki moo jënd ak xaalisam nag man d'accorduma ci ku jënd ak xaalisam ñu ne waruñu ko jaay lu bari non non ki am xaalis day jënd bu mënee jënd fii yëpp liberté sis yëpp luy problème bi mu am na ko xaalisam bu dee moo ko liggéey mu lew ko rek mu jënd ko amul problème mais doo ànd ak man ci politique rek parce que jàppale nga ma ma dem daggal la loo xamante ne amoon nañu toog ñëpp ñoo xam ne mérito woon nañ ko amuñu fu ñu dëkk waroon nañ ko mën a am du yoon ñu jógee ci loolu ñuy wax déclaration ba tey ngay ne damay audit kii damay audit kii amay audit si baax na bu ñu ñëwee dañoo war a auditer loolooy dëgg te ñi nga xamante ñoom la ñuy auditer sax ñoom dañoo war a bëgg ñu auditer la ñi commencé dañoo war a bëgg ñu auditer la pour que nga xam mise au point man fii laa jëlee mbir mi bés booy génn ñu auditer la ñu ne fee nga ko jëlee mm-hmm. kii génn dafa war a nangu ñu auditer ko pour que bu xasee ba dem kenn du ko tuumal ne ko yaa fi defoon lii mais ba may génn lii laa fi bàyyi auditer nañ ko bind mm-hmm. waaye yow may ñëw di auditer day fekk yow nga auditer sa bopp ba pare mm-hmm. maa ngi door a ñëw lii ak lii laa am ma teg ko ci table bi dégg naa barki démb of nag ñu ne euh, PM ak son gouvernement def nañ déclaration de politique générale de de de patrimoine mais nañ ko teg ci journal officiel bi fang daaj même boo amee coow no problème ndax sa président teg na bosam ba noppi léegi ku dee kiy jiitee nekk la père de la nation moo mën a teg bosam ñeneen ñu teg ko warul nekk problème nañ ko teg rek lu nekk rek dañ koy waxtaanee réew mi lépp lañuy ñuy waxtaanee bu waxtaan moo indi tey euh, loi amnistie am wala ba ba ba ñu génn prison waxtaan moo indi tey mhm. Macky Sall dem ci jàmm ak salaam te dara xewul donc kon gisuma leneen loo xamante ne war nañ koo mën a waxtaanee bu ñu mënee waxtaanee loo xamante ne ay bakkan cee wadd donc affaire de euh, euh, euh, al affaire àdduna yi nii nii waxtaanee ko du nekk problème bu Camara loolu rek moo ci sama gis-gis. alors Sénégal lancé satellite am barki démb ca Californie. Eh, ñu bokk ci réew yi nga xamante ni ci Afrique fukk ak juróom-benn wala fukk ak juróom eh, eh, ñett ci réewu Afrique yi nga xamante am na seen satellite bopp loolu moom jaloole la boo xamante ni Sénégal def na ko muy lu baax ci wàllum surveillance des frontières wàllum collecte de données wàllum surveillance xëy na climatique ak yu ni mel sa jàngat ci. mais gaynde sat bu ñëwee waaw gaynde sat ñëw na dañoo war a yëkkati mbagg rek títaru

voilà mais ku ne gis na ne premier baril ba. <laughs> wa xam nga rek <laughs> mi ngi naan waaw waaye waaye wax jooju foog naa fay na lutax parce que premier baril bi ku ne xam na ne basirou Diomaye fay moko moko dekk fele ci palais de la République bi rem soulay ñew daal di ko koy diktal mu nekkoon mbégte ka nga xamantene waxon na ne gis na fa ñi manqué muy d'or taxaw na sax ni ci benn émission gis naa ko mu ne en réalité ñun sax ñoo yoreloon Alioune Sall 400000 donc loolu loolu ñoom su jàngalul ñi nga xam ne ñoo doon def campagne de en problème bi mooy mbir mi ñaar lay am mhm. bu dalay jàngal yow mu doon def campagne de diabolisation bi bu la jàngalul day jàngal xale yi nga xam ne ñooy